maakaana ne ko jaa waxal ni tontu mm-hmm. nitam ña ilaayam xaaloo lu mooy ñu wax mm-hmm. axarajoo génne leen mm-hmm. aala looti nit loon ña min xawmikum axarajoo génne leen aala looti nit loon ña min xariyatikum ci seen dëkk innoom naka ñoom unaasun aw nit la ñoo xam ne yépp taxaaroona dañoo laab laablu ñoom aw nit la ñoo xam ne dañuy góob góob lu kon nag nangu ñoo dugg ci suñu aada bi ñooñu ngeen leen dal di génne yàlla nee na hmm. ba dee naa ñu musal ko moom loolu hmm. waa loo añu ñoom dina bara toon jabaram hmm. moom xatar naa dogal nañ ko ñu noo ne mu bokk ci way desi ca alaku ba demal loolu alxuraan waxul nan la nan la ne de ne moo itteel daal moo de ne amoon na ku baax koo xam ne kii ni loolu lañ ko doon wax loolu moomu waa waar na ba mu waaree am na ñoo xam ne ñii ne ci biti la ñu nekk waaye xam nañ ni ku baax la nangul nañ ko am na ñoo xam ne ñii nii itam biir kër nekk xam nañ ne ku baax la nangul ko waaye loolu yëpp am na ku nekk ci biir koo xam ne kii ni ku bon la nangu koy nangu koy gëmal ba mu ba mu mën ma ñëwee nag kooku la jege lool amal amalut ku amul ci moom benn njëriñ li mu nekk nekk jabaram comme que gëmul ko rek loola moom muy jabar boobu la du ko jëriñ jege ñaane gi du ko jëriñ. Eh, gëm yàlla la ñu bëggoon te moom ko mun nañ ko àll ak doon da nga xam ne dafa nekk jabare ku baax liñ koy déggee nag léegi bu gisu tey moo ne jabare ku baax mbaaxu ku baax te du ko yóbbaale àjjana du ko yóbbaa du ko yëgati lu tam benn daraja du ko maye tam benn pouvoir ci diina waaye amuñ soxla ci tur nag ndax bu ñu waxee tur rek damay mel ni ku mel noonu borom tur bi nag moom moom àtte bi xadanaa xadanaa dogal nañ ko minal xaabiri na mu bokk ci way de si jumbugan ma waa mm-hmm. am tar naa nee nañu taw nañu mm-hmm. alayhim ci ñoom nit ñooñale mm-hmm. nit loo ñooñale taw eh, matalan taw fasaa a ñaaw na matalan munsiriina tawab eh, tawab ñu ñu waal nee na ñu ñu daan waar nee na ñu taw nañ leen taw boo xam ne bii ne bu ñaaw la mooy tawam bugat bi nga xam ne moom lañ leen tawoon ñu ala ko léegi nag ñu ngi bëgg a dugg aay yoo xam ne yii ne boo ko seetloo rek mm. dafay mel ni ab saar woo xam ne yii ne dafa nekk ci biiraw saar mm. soo seetee rek ñu ko tàmbalee mm. dafa mel ni léegi ñu daan tàmbalee xutba dafa amee commencement xutba naan dafa def alhamdulilahi wasalaatu ak ak salaatu ala nabi def ko ci bopp bi mm-hmm. mel ni ab xutba boo xam ne bii nii dafay nit ab saar woo xam ne saar spécial la woo xam ne yii dafa nekk ci biir saar bi nee na ko kon na nga wax mm. alhamdu mboolem cant lillahi ñaan ñaanal yàlla mm. wasalaamun musal mm. ala ibaadi yéena nekk ci jaamam yi àlla say ñe la nga xam ne istafa tànn na leen nee na ñu tàmbale xutba alhamdulillah wasalaamun ala ibaadi yi la si istafa su ko defee na nga door a commencé na xutba nag allah ndax yàlla hmm. xayaran moo hmm. gën am wala hmm. maa li nga xam ne yusrikoo ne dinañu koy bokkaale gis naa benn borom xam-xam bu bëgg bëgg dee la nee na moom aaya yi da ko bëgg lool da sax bëri koo xam ne gii ne rafet na ko ak gaaral koo xam ne gii ne gaaral na ko tawee ak wéetal yàlla koo xam ne gii mu ngi ci moom daal leen aaya yi da ko neex lool nee na bëri daal lu koy lu mu koy lu mu koy lu mu koy jullee mhm. wala loo xam ne dafay toog moom kenn sax di ko jàng mhm. ndax tamit da cee nekk bu baax a baax ngeen seetantal ko mhm. ak ñu ngi ko commencé nag mel ni aw saaru boppam wala mel ni xutba mu nekk ci biir saar bi allah ndax yàlla xayrun moo gën hmm. am wala maa la nga xam ne yu suboon na ñu ngi bokkaale hmm. ndax yàlla gën hmm. wala dañuy bokkaale moo gën da da léegi nag dañ la xamal li yàlla def su ko defee nga présenté ko ak li bokkaale yi def am man wala ka nga xam ne ala xam ne na asamawaati asamaan wala arda suuf waan sala mu wàccee la ko ñaan leen ñu ne sama ci maa ndox waan bat naa ñu ñu saxalee bii ci moom xadaa ay tool saata ba jëte nii boroomu taar nekkul ko ñeel leen mm-hmm. antum bitoo ngeen di saxal mm-hmm. sajara ay garabam mm-hmm. di laa ak suuf wàccee taw wàccee ndox ndox moomu le mu saxal la leen ci ay tool ay tool yoo xam ne yéen yu rëy la yoo xam ne yéen yu la di yéen mën leen a fexe ba saxal la ay yàlla ay laaw ndax xam ne jënd yàlla maa laa joo xam ne jënd xam nag yàlla dafa dimbali ci loolu déedéet amul mu ne kon nag bali fi nekk ñoom amul awlu la ñoo xam ne ñi ni yent loolu dañuy aman wala ka nga xam ne jaala def na al ardu suuf hmm. mu def ko xaraaral mu di aji sox hmm. suuf mi nga xam ne hmm. jaawoo nekk ci ndeyjooram jaawoo nekk ci kawam jaawoo nekk ci ronam muy suuf moo xam ne nii dafay dafay dafay tëmb tëmb ci ci digg jaww ji jaww féete ko suuf féete ko kaw jaww féete yàlla mu jël ko nag au lieu mu daaneel ko ci ci biir jaww yooyu de wala mu ko mu jëm ndeyjooram wala càmmoñam mu xaraaral mu di aji sox wa jaala mu def mm. xelaalaha ci biir suuf mm. anaaran ay yoon de wa mm. la mu def daa ñeel ko rawaasiya ay toj yoo xam ne yi ni mooy soxla ñu wa eh, jaala mu def beneen baxara yi diggante ñaari géej yi haajisan aji diggale boo xam ne bii nii mooy diggale ndox mu neex mi ak bu naqale bi ndax kooku le moo gën wala bokkaal yi ñuy bokkaal yi ñoo gën ay laaw na xam ne jenn yàlla maa laay joxaan ak yàlla ba demee nekk ak turam lépp ñoom laa yàlla moo ne aman wala ko xam ne yu yëbu dina tontu mm-hmm. al mul tama aji lor di mm-hmm. saa daaw boo xamee ne ni ñaan na ko mm-hmm. waaye su muy muñu asoo li ñaaw waaye yàlla ko mu def leen wala baala at ngeen wóotu ngeen di wóotu ci suuf si yenn ñi yenn yenn ñi amatan yenn a nekk ci kaw suuf si yenn yenn yenn xeet yi amatan yenn wóotu xeet yi nga xam ne yéen yéen leen fi woon yenn ñi fardan fardan kenn ku ne moo fi wóotu baayam wala moo wóotu maamam kenn mhm. ku ne xalifa la mhm. wala balaa lar mu dee ñu ne way wóotu suuf si mhm. ay laaw ndax xam ne jenn yàlla maa laa joo xam ne am na yàlla xale nan lu néew la maye sa kanoona li nga xam ne li ne moom la ñuy fàttaliku amay yandeegum walla ki leen di jubal moo gën mhm. walla xeram moo gën mhm. amay yandeegum walla ki ay jubal mhm. fi zulumaati al-baari barri ci lëndami jéeri wal baxari ak géej ba man ak waxam ne yursulu dana yebal ariya ngelaw yi mu sobal ñi de woytu saare bay ne day ramate ci kanam yërmandeem ay laaw ndax xam ne jënni yàlla maa laa joo xam ne jënni xam na yàlla mu mot li na bi ña taala màgg naak barke allah yàlla amay sukkoon vocale mm-hmm. des na sax mhm. aman wala koo xam ne yëpp dawo dina door mhm. alxawka xam ne moom mooy doon bind mhm. su ma yeyee doo toog mu dellu ko bantuwaat moom moo njëkkoon a bind gannaaw ko moo dellu bindaat ak ko ka nga xam ne yëpp soo bëgg dana di ak suuf ay laawa nga xam ne jënn yàlla maa lay ne dana def li yàlla li yàlla mu mot lu xutba bi nag ne leen xool ne leen gannaaw nga xam ne amu leen lay yu toll nii bu ngeen lii mooy lay layu yàlla kenn la Hmm. lii mooy lay yàlla kenn la hmm. yéen itam nawaatu indi leen quraanakum seen lay in kuntum def nekk ngeen saari xëy na di koy dëggal hmm. nekk leen ku mooy yàlla am na indi leen seen lay kon la ñu jaar ñu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj kañ lay kañ lay am mooy leen xol ne leen laa yàlla mu du xam man fi samawaati bu nekk ci asamaan wala ab daag kenn xamu ci ñoom alxayba loo xam ne li muy fàddu na wëlis leen mhm. kenn ci ñoom xamul xay bu mhm. ilallah ilallah ndara yàlla mhm. ilallah ndara yàlla moom moo ji ko xam ne kii ne xam na xay bu kenn ci ñoom xamul xay bu affaire xam xay bu ak ñoom koo xam waxoon nañ ci ak leeral boo xam ne kii nii nii la woon dañoo waxoon ne doomu aadama yi yëpp dañoo waxoon ne xay bu xay bu kenn xamu ko dañoo waxoon ne xay bu kenn xamu ko benn doomu aadama xamul xamul xay bu waaye nag xaybu nag bu ñu nee kenn xamul xaybu itam hmm. dañu ne yow de xamuloo lii sa xaybu hmm. waaye waxuñu la ne mënuloo xam xaybu xaali hmm. am na loo xam ne xaali mënu koo xam waaye yow mën nga koo am na loo xam ne li ñuy demb xamu ko waaye yow koo xam waaye yow nag am na loo xam ne li ñuy xamuloo ko te fekk xaali moom mën ko xam yow nag lépp loo xam ne li ñu xam nga ko rek loola doxatul xaybu ci yow waaye li nga xam ne li ñu mënuloo koo xam ndax dañ la ko yii loola la moom la ñuy tuddee sa xaybu ba tax na daal doomu aadama boo gis rek loo xam ne lii lu leer nañu la ci moom ak loo xam ne lii ni xaybu la ci na xaybu boobulee lépp loo xam ne lii ne yàlla maa ko nëbb loola la te bis pénc ci bokk loola la dootu loo gisati ci asamaan ak suuf koo xam ne kii nii moom xam na ko ala ela laandara yàlla amaaye solo na ñoom yëguñu ay yaana yëpp xamuñu ay yaana yëpp façon nag kañ lañ leen ay dekkal balli fi nekk hmm. iddaaraka jos si la sox hmm. en moom seen xam-xam li hmm. laaxara da ci àllaaxara ma ndax ñoom dañoo dem sax de li ñu tudd li ñu tudd bay dugg ci àllaaxara seen li ñu tudd dañ koy yemalewut ci àddina den de li ñu tudd sax ba ci àllaaxara balli nekk moom ñoom ñu sogin ñu ngi nekk ci sikk min haa ci bis koy njiit pour sax li ñu tudd moo leen ci bëggal dañ ko gëmut rek balli fi nekk moom ñoom amoon na woy gumbu lañ an min haa ci bis koy njiit dañ cee gumbo waxaala wax naa la sunu gaa yi nga xam ne kafaroo wedd nañ hmm. ay naa bu ñu nekkee turaaban hmm. di suuf hmm. waa baaw naa ak suñ bàyyi itam nekk suuf ay naa ndax ñun la muxru joon ñi ñuy génnee lañ axat way naa dëhalees nañu xaasa lii ne bu ñu bu ñu nekkee suuf dañuy génnee ay naa nañu waa baaw naa ak suñ bàyyi min xam lu ci njëkk ilaa saa delli ilaa saa ati la dawa dina dara day day day nekk yi daa leen nettali way njëkk yi wala mhm. leen si loo dox leen ci laata ci suuf bam su doon na ngeen seet kay bakaana naka la nekk mhm. aa xamarul mujj li ñu mu jëg way njëkk yi mhm. wala taman yow yonent bul yàqaan leen ci ñoom wala taman bul nekk bee bay xen ci xat maa ji la nga xam ne yam ko doon ñu ngi koy pere parce que ñoom daal dañu la mënal dara waaye xoolal na li ngay wax. Hmm. ma teewlu woon bi de kañ la. Hmm. dañ naan ku ku gëmul ñu bëggal la. ma hmm. tëkk boobu kañ la. in ko doon ngeen saa xëy na de dëggal. kon wax leen ne leen. xase amaan la. aneekoo na di nekk. rëdd fa toftalees na. lëkkum ñaar leen. daa wax dañ la see leen li nga xam ne. toftale ji doon yéen a ngi koy leen dànk de. waaw tuur de. bëggal li ngeen a yàkkamte. baa moo ñëwee itam dafay toppante. yàlla ko ci saala ko di topp ja. yàlla ko ci taala ko di topp ja mhm. wala mbugal ñëw meneen topp ci mbóot wala mbugal ñëw meneen topp ci ci taafla mhm. waaye nag bëgg naka sa borom la suu fabdalil borom a nga ne laalan naa ci nit ñi mhm. ngeneen googu moo tax mu yéex leneen bugal walakin waaye ak sa borom lépp ci nit ñi laye sumona dañu du sant waaye dara ba ko sa borom la yàlla moo dana xam maa la nga xam ne. ñu hmm. kii la doon nëbb ko su dooroom seen xol yi. Hmm. maa yàlla noonu ak li nga xam ne léeg-léeg moom la ñu la a di seen ma hmm. maa min xaa'ibatin. amul lenn lu fàddu. du sama ci asamaan wala ab daa foofu. ilaa fi kitaab la mu nekk ci téere. mu beneen boo xam ne beneen bu bër la. mu ne. dinaa hmm. suñu xuraan nag alxuraan nii. yàqu su dana dana jàngat. Hmm. ala bani Israayiila ci bani Israayiila. Hmm. ak sa woon na si li ëpp ci li nga xam ne. moom ñoom yaxtalifuuna danañu wute fii ci moom. mu ne alxuraan mi de. dana jàngatal bani Israayiila. lu bëree bëri. loo xam ne ni ñoom ñu ngi koy am wute. dañoo bëgg alxuraan nga xam ne ku yëg la. loolu tam moo tax ñu ne alxu dinaa suñu xuraan nag mili alxuraan. Demba Mbile. Mm-hmm. Ali Mbile. Mm-hmm. Samba Mbile. Mm-hmm. naa alxuraan nag Mbile alxuraan. yàqu su dana a naa la bani Israayil ci bani Israayil. ak sa la si lépp ci la nga xam ne moom ñoom. yaxtalifoon danañu wuute fii ci moom. waaye doo naka luy moom. dafa dan jub la. jubal la. wa rahmatun yërmande lay itam lil moom nii na ñeent jullit yi. dana naka sa borom. yàq dee dana bay moom ci seen diggante. Eh, bi hukumee ci xàtteem mm-hmm. sa borom mm-hmm. nee na mooy xàtte seen diggante mm-hmm. ci xàtte boo xam ne bi ni bi hukumee ci xàtteem alxuraan mi ne mhm. boo gi nañu waxee noonu mhm. ñu ko jëlee ci hadis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mhm. hadis yonent bi mooy melal alxuraan nem alxuraan dafay ne da ko daan jàng mu fekk ci bàmmelam su ko defee mu ko wax alxuraan moomu la moom moo ne alxuraan mooy moom itam dafay woote comme ni jëmm de dafay def jëmm hmm. nga woote mboolem jàngkat yi nga xam ne ni ñu ngi doon jàng hmm. nee na alxuraan itam dafay nekk jëmm hmm. da nekk ci xolob képp koo xam ne kii nii min nga koy jàng da la dàgganteel képp koo xam ne ne bii nii koo jubul mun laa bëgg a yàqal xalaat ak addis daal moo ko def ay yoon yu bëree bëri ba léegi nag mu fassiroo nañu xam ne noonu lañ ko war a firee wa tawakal na nga wakiilu ala laa ji yàlla innaka naka yow yow alal xaq yaa ngi ci dëgg al mu benn joo e naka naka yow mm-hmm. laatus mi yow doo mën a déggal mm-hmm. an way dee muy xéefari mm-hmm. doo leen mën a déggal waare wala tas wala tas mi wala tas mi doo mën a dégg asuma way tax doo leen mën a déggal ak doo leen isaa wala bu ñu da doo mut bi dañu joxe gannaaw nee na tax jox gannaaw mën a toxa wax wax ba mu geesu la tax bi joxe gannaaw mu ne mën waa fexe ba mu dégg la mm-hmm. loolu mooy yéefar mm-hmm.

daawat batan daabba mm-hmm. boo xam ne jii nii dafay dox minal mm-hmm. arde mu tukkee ci suuf tukallimuhum mm-hmm. mu de waxante ñoom ndaxte yi dan naa sa ndikk nit ñi kaanoon nekk na lay yokk noonu du ñu wóolu gaayaat naa ci suñu kéemaandi dana boo xamee ne mbugal xëy na ci ñoom danaa génnee daabba joo xam ne ji ci suuf lay bayee ko muy wëreelu da waxante ñoom la tax ma def kéemaan lu wéyee noonu la moo di nit ñi dañoo gëmut ne kéemaan dina am nii lii daal la ci alxuraan wax nii itam fii itam daan mbugal xëy na ci ñoom mm-hmm. daañu génneel daaba joo xam ba bii nii ci suuf lay bayee ko mm-hmm. daaba jooju le mooy wareelu te mm-hmm. waxante ñoom ba ñu xam ne ndax li tax loolu day am moo di ne ñoom dañoo gëmatu suñu kéemaan yi su xam ne kéemaan am na ban tey fii la ci xam-xam yem waaye amanaa su ma fàttaliku bis ba nga xam ne dañu pang hmm. dañ ko loo matin ci xeer boo jan mboolo hmm. ñu man ci ñoo xam ne yu ko sibo dana wedde daa hmm. yaat naa ci suñu aay yi bu boo xam ne daañu pang ay mboolo ñi nga xam ne ñi dañ naan weddi suñu aay yi boobu ñoom yoo sonoon dañ leen ay tàqale kuréel ak i kuréel ataaya saa jaaw dikk nañ place ba nga xam ne benn ci li ñuy xisaabee xaala borom bi ne leen ak asabtum ndax weddi woon ngeen daa yaatee ci sama aay tegu leen woon daay hmm. sunu aay yooyu ngeen moom xam-xam hmm. a sa hmm. wala lan ngeen nekkoon bundum nekkoon ngeen tàmbaloon a daan ko def da ngeen weddi woon suma aay yi suma téere bi da ngeen ko weddi woon tàmbaloon woon ci xam-xam wala boog ngeen daan def ba day waaw xanaa tàbbi alxawlu waxe mbugal na leen ci ñoom maa ji leen xam nga xam ne moom bokkaale nañ ko boobu ñun laayeen toxoon duñu tudd ndax duñu leen duñ ko mën a eh, ñoom ñoo alam yaraw xanaa xamuñu an naa nako ñun jaxal naa def nañu àllay la guddi li yeskunoon ngir ñu dal fii ci moom mhm. wan naxaara bëccëg def nañu ko musural mu daaji dal mu daaji leer mhm. mhm. ngir ñu mën ci liggéeyee ina fii saalika aji nekk la ci boobu laa yaat na ay kéemaan nga xaw ñaan li ñu xam ne ñi ne yóbbu noonu danañu gëm waaye boo xam ne bis ba nga xam ne def na wàll bis soore ji buub tub bi dana bis ngi ñëw boo xam ne bu ñëwee dañuy wàll ci buub tub bi nan lañ ciy walee alxuraan waxul nan lañ ciy walee waaye bis ngi ñëw boo xam ne daal ñaari day buub tub daal sóor bukk boobu la dañ ko wal ñaari yoon hmm. am na walin boo xam ne bii ne buñ ko fa walee hmm. képp koo xam ne kii ni fekkuloon nga dee bisab hmm. keroog ci ngay dee am na walin boo xam ne bii ne buñ ko fa walee képp koo xam ne kii ni fekkoon na nga dee bisab keroog dana lekki boo mën a daa fekk ñuy waajal yow ma xiyaam waaye am na yéen bokk. bis ba nga xam ne des na woon ci soore ci buntu bi. ba ko saa su ko defee tiit. man fi samaawaati ku nekk ci asamaan. ba man fi la ardi ak ku nekkoon ci kaw suuf. ilaa man mm-hmm. xanaa rek ndare koo xam ne saa som na allah yàlla mm-hmm. xanaa rek koo xam ne kii ni som na yàlla mm-hmm. nee na kooku moo ñu dul tiit waaye ñu def ñëpp la ñoom dañ ca dee su ko defee nag waxuloon képp ñoom ñooñu de at aatoo diggal nañu yàlla daaka nañu de way toroxlu su ko defee ñoom ñëpp ñu ngi ci yàlla boole ko torox watara da nga gis jamono jooju de ak ji bàyyi la toj doj yi mais su baa nga di ko jortu eh, jaabe dafal mu daaji dal mm. wayete moom mm. tamurdu mu ngay romb wala saa bi romb miir mm. jamono boo xam ne borom bi tabaraka wa taala waxati na dañu hëddi ba toj sax day da nga koy seen defe ne ndax nekkul di dem waaye fekk boo mu nga gaawee ni niir gaawee waaye saloo naka ni jibaal faqul yamsuha rabbi nasfan nee na loolu leesu naa laay mooy liggéeyam yàlla. Mm-hmm. àll si yàlla mi nga xam ne ab xanaa wóoral na. Mm-hmm. bu la sooy lépp nag. Mm-hmm. yàlla moom mu la woote. ñëpp ngay ji. ba tey ji sax nga yaakaar ne nekkuñ di dem. waaye dina ngay ji. loolu la yàllaa ko liggéey. yàlla mi nga xam ne lépp lu mu liggéey rek daf ko liggéey liggéey bu a ginnaaw moom yàlla. xabiirun aji dañ kumbal ak maa ci li nga ne yëpp loolu yéen man jaa ku dikkee ne yamal xiyaam boo xamee ne borom bi tabaaraka wa taala woote na. Hmm. ba ñëpp di ay ji. Hmm. ba doy yi sax nga yaakaaroon ne dañuy dem waaye ñoom itam dañuy ay ji. Hmm. bisab keroog. man jaa ku dikkee ne bil xasanati ci tiyaaba. ba xam ne kii ni indiwaale nga fa tiyaaba. wala ñu yaan la wa xayran lu gën. min haa ci tiyaaba boobu la ñu indiwaale fa. waxtu benn boo ko indi. daañu la ci jox fukk. fukk yoo ko indi ñu jox la téeméer. woom ñoom. ñoom ñooñu li nga xam ne ñoo indi yow. aami noonu wóoru Hmm. ñun a na a mi ci njàqare bi googu de hmm. ñi nga xam ne ñooy indi yiw hmm. ñu ne ñoom duñu bokk ci njàqare yooyu la ba man jaay ko liggéey nag bisu yaa di ci lu ñaaw te mooy bàkkaar wala bokkaale ñooñu bu jëm seen kanam dañ leen ko fi naari ci safara xal bi saana su ko defee ñu ne leen hmm. fayeesu leen déefu leen fay hmm. illaa ma ndare la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen hmm. tax ama loolu daan ko def loolu rek lañ leen fay wax leen ne leen indama amatu santeef na ma ana abuna may jaay war a baaa siil baldati borom bi lépp bi lépp bi lépp dëkk mu makka ala si borom bi nga xam ne xarama xaraamal xaraamal na ko xaraamal na képp koo xam ne xaraamal na ko fekkee ak koo xam ne kii ne daf koy ràppal wala wañ yàlla ku lu say lépp lëf boo amatu santeef na ma itam an akoona ma nekk minal muslimina da bokk ci wéy da bokk ci jullit yi hmm. waa an allo waa ak may jàng hmm. alxuraan alxuraan hmm. na ma itam may jàng alxuraan ma ne daa koo xam ne kii ni jub na loo ñaan ko fay hmm. na maa yàq yi naka dana jublu na si ñaar boppam. xamoon hmm. dala koo xam ne kii ne sànq na. Hmm. waxoon na leen wax ne leen. inama ana naka man. minal munsaliina bokk naa ci minal munsaliina bokk naa ci ma leen yëgal ne man mii. ci waarkat yi laa bokk. waxoon na leen wax ne leen. ala na moo leen cant laa ñaan na yàlla. sawarikum xas sajurikum xas na leen ay wan. aayaat ay aayaam. ba taarifoona da ngeen da ngeen ko xam hmm. wama wama rabbuka def sa borom da hmm. xaafile mu daa ji sàggan hmm. amma yëf ma loona ci ci li nga xam ne lii ni moom la ñuy daw da ngeen wax ne leen innama ana min al munsirin te bokkoon na ci yonente yi yonente boo xam ne bii nii day nalloo léegi min na bay Moussa bu firaana bu firaana bi laqil xawmin yooyu noonu yaa ngi fi Moussa nag am na fu mu jaaroon. Mm. ak boo xam ne fii nii fa la ja ñaay ña ko la ñu jaaroon. Mm. te man mii nag. dina mm. maa ana minal munsirin su ko defee nga xam ne tànk yu tànk yu mel noonu. nañu dem fi naa di jaar ak yéen. mooy da ngeen may gëmal texe. wala ngeen weddi ma rek texe aadi. wamaa yéen wamaa rabuka dee sa borom ba xanaa fi leen mën a aji sàgg naa maa ci la nga xam ne taxamaloo na yéen a ngi koy def. sooratul xasas moom la ñuy bëgg a jàng si hmm. moom na saar la woo xam ne bu hmm. baax xam la ca xisa Moussa hmm. ak ca xisa Moussa saar yi ñu passé yëpp ñu ngi ko daan commencé ci digg xisa bi waaye saa yi ne moom ñu ko commencé ba Moussa ji doogul ba bi Moussa di yaru ba bi di dawee ci kër Firawna dem Misra xaasin miim hmm. borom bi tabaaraka wa taala moo xam lu mu ci jublu hmm. tilka lii hmm. aayaatul kitaabi leen la ci aayaay téere bi muy alquran ak mu benn jëdaa ji mbir alquran nee na nan loo dañuy jàng aleyka ci yow min na béy Moussa ci xibaari Moussa wa Firawna ak Firawna bi xaq ci dëgg nee na ñu ngi la koy jàngal alquran lii nag mooy aaraaw bépp bu waxee ne maa laa ci saa rek dana wax ne maa laa ci taw kitaab dëgg xis na yaam na ci yoo xam ne yéen duhul dëgg hmm. su boobaa nag gannaaw xis moom li ci di dëgg na ko hmm. daje def moom dootuñ caawa si soxla léegi hmm. dafa am ñaar am na ñoo ñu ne yow استطاعني كما تيدي مدن إن فرعون كفرعون على تفرين وانت الأرض جسوم أجعل مدقنا جبوت نيسوم شيئا مدقنا أي كريل كريل أنا فرعون أنا فرعون تفرين وانت قوتوم waa قوتوم نك كنو من لنا يدمني من لنا نبضا مدق ñu jëfandikoo ci siyaasa boobu ñuy wax koy def su sab dàqalee nit ñi su ko defee dañ leen di lëf nee na firaaw nag politique boobu la doxaloon ajaalam mu def adaha ñu ngi suuf mu def leen suyaan ñu nekk ay kuréel kuréel mm. dafa jëlal waa kaw suuf mm. mu tasaare leen kuréel kuréel mm. kuréel yi nag ñoo mu neen bëggootuñu su ko defee kuréel bu ne nag nga am soxla ci moom mm-hmm. mu mel ne nay feesal feesal bu baax su ko defee nag yàpp ne bu muy doadal waaye fa doon kuréel bi nun ci ñoom boo xam ne bii daf ko yëkkati féetale ko kaw ak kuréel boo xam ne bii daf ko féetale suuf kuréel boobu nag mu mujj gisal dóor muy reen di am naa woom seen doom borom. waaye hmm. sañ yi muy dundal. sàkkoo hmm. muy bàyyi dundal li saa am seen i jigéen. mais hmm. boobu la di banu Israayila. moo bëtt ko nag jëm ci ñoom. ne gis eh, de ren di seen i doom. yu góor. yu jigéen yi itam mu di leen fi bàyyi. ñu ne. dañ ko wax ne ko daal. am na koy ñëw ci mujj yeneen daf muy ñëw. te ci ñoom laa juddoo bu bu reyee seen doom yi hmm. la bañ a bañ a juddu. Hmm. wala bañ koo rey moom. Hmm. wala itam. wala itam dafa gisoon banu Israayil sakkan koo xam ne gii nii dañ koo sakkan. ak tandu koo xam ne gii nii dañ koo tandu. ñu commencé bëgg a jël économie réew mi ci loxoom. mu bëgg nag ñu wàññeeku. su ko defee mu mën a jot boppam. loolu moo taxoon mu a rey góor ñi. inama naka ko daana mhm. daana nekkoon min min muslimina da bokk ci way yàq yi mhm. waaye alxuraan nag nee na mun mhm. yàlla wanu réeru namm nañu an na mun nañu xewalaana la dina ci ñi nga xam ne waxtu xeboo neewal lañu leen doole walaat da ci suuf war nañ alowom ñu def leen ay matan ñi njiit a nañ alowom ñu def leen alwaarasi na ñu doon nguur firaw naga waaye nag nee na gaa yi firaw na xaajale woon na mboolo yi def na defoon mu neewal leen wet leen fekk mm-hmm. man yàlla mm-hmm. loolu mooy safaana li nga xam ne man moom laa bëgg mm-hmm. ak li ma fafa moo di ne ñii mu defal gannaaw ñii mu néewal doole ñii mu ñàkkal solo man danaa leen yëkkati ñi def leen ñi ay kilifa su ko defee ma jël nguur ak firaw la ga jox leen ko ñoom ñu doon la ko doonee ko ci kaw keer ci misura wala ma jox leen nguur fu mel ñaanal ko foofu la ci saam wana makke nañu jàpp na lewon ñaan leen bila hmm. ab na ci suuf si hmm. waaye won ree ñu won hmm. rawana firawna wa haamaana ak haamaana bu junoodu ma ak seen lël ba mënum ci ñoom maa la nga xam ne kaana nekkoon na yéen solo daan ko wattu ndeko bu ko defee firawna ak haamaana lañ doon wattu ndeko daan ba wattu xeet yi dañu mos a dañu mos a noti wala dañu dana mos a amee yonent bu ci génn dañ doon wattu ndeko fekk man yàlla fasoo naa ne danaa ci paccat ak nit koo xam ne kii nii dana mucc ci seen bugal doon ragal yëpp dana leen ko indil. Hmm. ba nga defee Moussa juddu. Hmm. ba nga xamee ne bii juddu na te jamono jooju rek. Hmm. dañ doon def ku juddu rek. daañu la dañu la rey. waaw xëy naa ñun yàlla na ñu mooy. illaa abi Moussa jëm ci yaayu Moussa. ba nga xamee ne bii nii Moussa juddu na. ñu ñoo ñun yàlla nag. ñu junju junju yaayu waaye junju la waaye duur wax yu. comme ni Jibril daa wàcce noonu. mooy ilham la. nga wax yaay Moussa nag ne ko. Hmm. bu la neexee nga nàmpal ko. Hmm. soo ko ragalee nàmpal. Hmm. daaj ko ci kees sànni kees gi ci ndox mi. ànd ak luy mbir. am na yaay nàmpalal Moussa. ci am dara ragal. day daal xet boo ragalee àll yi ci moom. waaw xëy nga ko ci ci ragalee. ko ci kees fokk sa kii fi dem mi. ba lu ba lu xëy na mu oh. wala tanaa bi bul ragal de hmm. wala tan sa nii bu jàq itam ina ñun yàlla raat hmm. doo ñoo koy delloo i léegi jëm ci yow hmm. wa jaane loo te koy def gina musulmi ñu bokk ci yonente yi daañu la ko delloo te daañu ko def itam mu nekk yonente cey soxna suy jël doomam dafa sànni ci ndox kon taxaat waaw bu ko defee. waaw mu jël nag doom jooju la dugal ko ci kees. Hmm. jël kees gi nag sànni ko nag ci ndox ma. Hmm. kon taxaat waaw bu ko defee for ko nag. Hmm. àll bi daal ñuy fi daal la. bu ko defee waa kër gi daal ci seen bopp. ñoo seen benn kenn boo xam ne bii mu ngay tëmb. bu ci pale bi. ndaxte pale bi comme ni nga gisee ci jamono ji ban tey nii loolu moo daan am. rek kër góor. pale góor ñaare foofu gis rek ci kër góor dañ koy def. ndaxte dafa am lu a moo tax nag euh, fekk kër Firawna kër Firawna euh, moomule hmm. mu nga nekkoon ca ca wetu géej ga hmm. ba ba ñu seet ne kees googu de mu ngay tëmb di ñëw fa hmm. saxatoo mu ngi ko defee fëkk ko for ko aal Firawna ñoom Firawna ah, lii ko ne ngeen ma nekk mu mujj nekk lawum ñaan leen addu woon noonu waas na na mujj nekk seen jàkkare yi tam ina Firawna نكسنا ولا وجهها ما هامان وجنودهما ak lëlëm ba mm. daanoon nekkoon nañ xaati yi ne dëggoy juum mm. ci rey gi nga xam ne jii ne moom lañ daan rey mm. ndaxte bu ñu leen waxee ne doomu ngi ñëw joo xam ne jii doom dana judd joo xam ne jii bu ñëwee mooy daal seen góor bi waroon na ñoo xam ne mi ngi rey rey rey ñu mën a àgg ci doom joojale mm-hmm. gannaaw nga xam ne moom mooy daani ngóor bi moom mooy daani ngóor bi rek war na ñoom juum mën Mm-hmm. Mm-hmm. wa Firawna is baatu Firawna jë jëbëri Firawna ji. yaa ngi ne. wax Firawna ko. Mm-hmm. xale bii nag. xurratu aynin seen dëkk ba la li ñu ak ak ak. jamono boo xam ne bii ne dañu doon wax ne ku juddoo dañ la rey hmm. mooy yonent yàlla Musaa ba mu juddoo hmm. jamono boo xam ne Firawna daan def bu hmm. juddul de góor mu rey bu juddul de jigéen mu bàyyi bi jamono boobu le man yàlla waaw xëy naa waxi nañu daal Musaa jëm ci yaayu Musaa an naka luy mbir ab dañuy nàmpatal Musaa bi etaa xibti boo ragalee yàlla ci moom boo ragalee ne boo ko boo ko nàmpalee dañ ko rey waaye xëy na nga ko sànni fi démb ci lëgg mi wax ko sa fee ci démb mi na nga jël yéen nañ koy daaj ci kees. jël hmm. kees googu la sànni ko ci kees bi. Hmm. sànni ko ci ndox mi. Hmm. ndox mi itam dina ko yóbbu ci tefes bi. wala taxaafee bul ragal wala taxsane bul ci jàkkatam hmm. mu ne ko innaa ñun yàlla hmm. araat doo way delloo lañ ko illéegi jëm ci yow hmm. wajaaye doo way def lañ ko itam mu mosode mu bokk ci way yón ñuy yónni ñi danaa ko delloo si te itam ci yónni ab yónent laa koy def am ko dee na fa saxatoo jàpp doom jooju le mu xool ko aala firaana ñun firaana waakat firaana ci seen bopp ñoo ko xoolal seen bopp léegi kon yéen ñi nekk loolu ñaan leen ànd woon noonu boo xam ne daf ñu lay topp dam hmm. mu ne ina fanaan naka fanaan wa hamaan hmm. ak haamaana bu jëloo doomu mbaa ak seen dëli daa doon nekkoon nañ xaate ina de way juum hmm. ci rey gi nga xam ne gii nii moom lañ daan fay doom bi jubbu ndax bu leen waxee ne doom dana jubbu yoo xam ne gii nii mooy daane nguur gi waroon nañoo xam ne mooy daane nguur gi rek bu ñu rey rey rek duñ ca mën a àgg kadeer ñu ñu ne nag dañoo rey xale bi hmm. waxaala waxew daal di firaw na jigéen firaw na bi hmm. jabari firaw na ji hmm. moo xam ne xurratu aynin sedd ak bët la lii ñu naan mu lak ak yow yow firaw na laa taxatu loo bu leen ko rey mën ko lii de xol bu sedd la ci man te xol bu sedd ci man am am ak yow doom kon nag nañ ko li li ci jot lu. asaay ay yan faana xamaan na mu jëriñu. Hmm. xamaan na mu jëriñu. Hmm. moom de jëriñ la ko moom soxna si. xaaral hmm. moom gëmoon na ko. te toppoon na Moussa itam. ba moom ku jëm àjjana la. waaye day ci firaaw na moom. aw na sax nga wala ñu jàpp ko wala la muy doom. wala moom ñu def ko muy suñu doom ak yow. alxuraan nee na woon ñoom laajee su ma la jëriñu Moussa mi ay mbiram fan lay mujj. noonu la kenn ko def. Hmm. jamono bi nga xamee ne saa nañ ko ci ndox mi. Hmm. ba nga xamee ne bii nii xool nañu ko bu yóbbu ko ci kër Firawna. Hmm. dañ ko bëggoon a rey. waaye soxna si moo wax ne nañ ko fi bàyyi mu nekk seen doom. loolu moo xew ci kër Firawna. da nga xam ne moo xew moo xew nag ci kër yaay ba mu jëlee kees ba sànni ko ci ndox moo di ne. waa faa xëy na. waa du umbi Moussa xolab umbi Moussa. xëy na. waaye dafa ngir ak jàqare. ba nga xamee ne mi ni jën eh, mu ngay dégg nañu ne kees ga jàpp nañ koy barab sàngam hmm. muy dikkan firaw na hmm. in kaar xawoon na hmm. li tubbi di lee de di wóoram bi moom tuuti rek mu ne suma doom la tuuti rek mu yoxo ne suma doom ñu rey nañ ñu rey nañ laalaa rabbana bu dox doon nga xam ne ñun yàlla ñoo takk xalaa xal bi waaye ci xol ma waaye man maa takk ne suma doom ñu rey suma doom ñu rey suma doom ñu sànni ñu ñoo takk xol ba li takkoon ngir mu nekk bi moom ne def bu dafay gëm yàlla mm-hmm. ndax mu xam ne yàlla mun na xeet li mm-hmm. waxaalam wax ne comme saa doom ci ci ca ndox ma mm-hmm. dafa wax li wax yi ñaan bokkam Moussa ñi da nga wax xus demal nga topp ko foppal ko xam suñu doom ji kan a ko for Abu Sufyaan mu génn nag ñii ci doon jaxan ji def ji bu hmm. bu hmm. xoolaat bu may na seen nag hmm. fan la dugg xale bi fan la dugg loolu ñoom jamono ji la laye su yëpp ñu ne am na koo xam ne mu ngi ci wetu biir biir néeg yi da da tabb ci sàkke bi da xool kees gi kan moo koy kan kan moo ko fob ak fan lañ ko foree ñu delloo ak kër Firawna. ba nga xamee ne bii nag yaay jabari Firawna ji nee na xale bi nañ ko fa ne kon nag kan moo koy nàmpal. ñu dem nañ ko wuti ko nàmpal. xaram naa ñun yàlla ñoo xaraamal. al ñoo tere. àll yi ci moom almaraade an nàmpukaay yëpp. nàmpalkat bi ñu ko waxoon rek. mu bañ ne xale bi bañ ne du nàmp ci kooku ñun xam lu ci nekk. bu ñu ko delloo rek. mu mu bañ. ñu naan xale bi xale bi xale bi nit ñëpp daal di ci ji jigéen ji moom dañoo Moussa jigéen ñi moom itam ci seetaan bi. parce que moom mi ngi doon topp kër gi. ñu naan ma leen ciy pexe kii leen ciy pexe. Hmm. ma ngi Moussa ji ma xaaral wax moom ma ngi ma ngi ji jigéen ji ne. Hmm. alaati la comme naan naa leen tegtal. Hmm. alaati la béy waa kër. ñu ñu kër. ñu dem ne. ñoo xam ne yegg doon noonu dañ dañ ko yar la comme ñaar leen. ma ngi Moussa bu jigéen bi. moom itam bokk ci ceetaan bi. moom nag moo leen wax ne leen. su ngeen bëggee ma xamal leen kër goo xam ne mën nañ leen ko yaral. yegg doon noonu dañ ko yar la comme ñaar leen. ñu ko yaral. waaw Ndiaw. Hmm. naa se woon a wéy wéy wéy laay bi lañ la woon ñaar ko. waaw dinañ ko laay boobu nag. nee rek ñu ne ko kan la. Hmm. mu tudd leen soxna soosale ñu ne ko na dem wooye ko ba ba sa ñëwee Moussa nangoo nàmp ci moom ñoom ma xamuñ ni yaayam la yàlla nag nee na faral la ñu delloo Moussa illaa ngay jëm ci yaayam eh, kay taxara ngir la dal xay noa bëtam walaa tan sona ak bu mu jàpp waytaanama ak ngir mu xam andama na laay naka dawale yàlla xaqul dëgg la nee na fii rek nag moo tax ma delloo ko pour xeet mi dal ak mu xam ne yàlla lu mu demee dala ko def waaye mënoon nañ ko bàyyi mu yàlla ci biir kër Firawna ka njëkk ñëw ne na naa ko nàmpal mënoon naa ko xëy mu nàmp ci kooka waaye bëgg mu bañ a jàpp walaa mhm. kenn waaye ak solo lépp ci ñëw daañu la moom duñu xam mu taa nag yaayam da ko nàmpal mhm. firaaw na dafay yaayam mhm. ba bisan ñi ko fay te moom mu ngi ndaxte firaaw naa kontoom ji kon moo koy fay daanaka ku doon daw. doon yoo xam ne dafa jiitu ba daan rey ñëpp. léegi nag ba mu léegi nag euh, moo ko yar. wala maa balaxa ba nga xam ne jot na moom xale boobu de asudoo kàttanam wasawaate hmm. mu yem hmm. ba nga xamee ne seen yàgg na ci kàttanam te hmm. léegi nga xam ne am dina ñeent fukki at ah tey naaw lañ ko jox bu ko man eh, eh, xam-xam waaye man jox nañ ko itam xam-xam wa hmm. kazaalika naka nii hmm. najisi la ñuy fay almuslimina way rafetal yi ne hmm. naka naa ma xamee ne bii nag yeneen te yàlla Moussa dem na ba àgg ci kàttanam am si fanweeri at ñeent ñeent fukki at yooyu jamono boobu le man yàlla booba laa ko jox xam-xam booba laa ko jox nubuwa booba laa ko def mu nekk ab yonent nee na man yàlla nag naka jekk nii laa dafay képp koo xam ne kii ni ku daan rafetal la te Moussa mu ngi bokkoon ci ñi daan rafetal hmm. danga xam ne Moussa àgg na ci nekk waxambaaneem mhm. am kàttanam mhm. wa daxala tàbbi tàbbi na benn bés mhm. arba day na du dëkk ba dëkk bi nga xam ne bii ne mooy capitalu Firawna nee na dafa am benn bés Moussa dugg ci biir dëkk ba ci biir euh, pays ba ala ala xëy na xaflaten di waxtu sàggan mi na daa ci ñoom waxtu woo xam ne li bëri ci nit ñi bi ñuy nekk ci biir mbedd yi nee nañu moo doon waxtu njolloor wala muy waxtu bëccëg waaye li mu gudd daal mooy waxtu woo xam ne nii nii daal jamono yooyu lu bëri mbedd mi di bëri lu may lu muy nekk ci mbedd mi a jamono yooyu la la doon waree ci biir dëkk bi. boo wàccee dama fekk fi aay ci dëkk ba rajuleen ñaari gaay. yaqtasifaani ñoo xam ne yéen a ngi lay xeex. haasa waa ji. min min siyaante yi mi ngi bokk ci mbooloo mi xam ne min siyaante yi mi ngi bokk ci kuréelu Moussa bi. waa haasa min ot bi mi ngi bokk ci noonam yi. bu fekk ba ñaari gaay ñoo xam ne ñoom ñu ngi la ci Moussa. parce que ci benn Israël la bokk. ki ne mu ngi la bokk. ba taxaa taxaw saak koy xeetali xeetale ko alasi ka nga xam ne mi soate bokk na ci mboolo eh, kuréelam ba alalasi ci kaw ka nga xam ne min adyi bokk na ci noonam ya bu ko defee fa waka so wet ko waa ji nga xam ne mooy noon ba Moussa Moussa ba nga xamee ne Moussa yéne di dàqale bu mu ñëwee dafa fekk dafa fekk waa ji nga xam ne jini seen noon la fa xam daa mu dogal leen léegi ci moom boo ko defee ci Isaaqa lay waaj a dee ba ko Moussa wéqee ci saaka mu dee قال محمد موسى هذا رأي واجب من عمل الشيطان بوكنا جي جف جف الشيطان يجي دي جف الشيطان لك لا تتقل لك تقل لا بغو واي بغو مجوهن بي ولا هذا لي لي دم وانا ما لا يخط لي تد بغو كو صلى موتا من عمل الشيطان بوكنا جي جف الشيطان إن أنا كم الشيطان عدو نون لك مبين بر أجي ريرا مبين بوكنا بين أجي بجي نون لك Moussa nag day ci ray nga xam ne moom la ray bakkan boobu de mhm. xaala mu wax ne mhm. rabbi yow mhm. na nga jégal ni ñaan a ko nga xamee ne Moussa nag waa jooju de nee na Moussa nag da tabaraka wa taala ak bakkan boobu la nga xam ne ak dayam mu jaaree ci ci loxo moom mm-hmm. waaye nag nee na yàlla itam jéggal na ko xaala mm-hmm. mu wax ne la bi ñaa sama borom mm-hmm. bi ma nam ci sa wasi xewal mi nga xam ne génne xewal bi ko àllee ci man mi nga xam ne léegi defal nga ma ko ci xewal xewal kooku sante naa la ko ba balat akoon dootuma nekkati waaye ran daa ji dimbale ñun mu jidi mii ne ñaar doonkat yi eh, gannaaw maa ngi lay sant ci xewal yi nga xam ne yéen ne moom nga ma defal maa ngi jaayante yow itam ne dootuma dimbale mu ko doonkat ba loolu amee nag mu xaar baar mu xëy na Moussa bi ma dina fi dëkk ba. Mhm. ah il man daa ji ragal. gerte mhm. laa ko moom ngay fuul fuuglu. Mhm. waxtu wu ne rek mu ko jàpp teel ko jàpp. wala teel ko rey teel ko rey. waaye sa des yi moom moom mooy ki nga xam ne. yestan mhm. saroo sàkk woon na koy dimbale ko. dañ mhm. am ci biir yëngu. yestan saroo tey mu ngi koy sàkkoo mu ngi koy yóbbuwaat. Mhm. sàkk mu xeet leer ko. mu dellu xeeti. jamono yooyu mu ngi ragal lool. naan tey ñu jàpp ma tey ñu jàpp ma. wala tey ñu rey ma tey ñu rey ma. jamono jooju nag mu dellu génn fi. fekkati waa ji nga xam ne ji ne moom la dimbale woon. tey mu ngi yóbbuwaat nag mu Moussa Kay dimbale ma Moussa Kay dimbale ma. ba nga nee na xaaral loo ñeel ko Moussa Moussa. Mhm. in naka naka yow. Mhm. ba xaw yoon aji beew mu beew la. Mhm. ba ba na ko Moussa jàmm nag. dafa yow daal ku beew beew gi itam lu leer la. démb rek lañ la su fekkoon ngay xeex. te yaa ngi nii da xeexaat. فلما أن أن أراد بمنمه moom Moussa. an yab an yab na sama ngëf. ñu ne fii ci waa ji nga xam ne moom moo du woon noonu loolu mooy ñaar la ñoom ñaar. Mhm. ba nga xamee ne bii nii Moussa jël na nag. Mhm. ba fi jàpp ci waa ji nga xam ne bii nii mooy noonu. Mhm. ate waa ji ni nga xamee ne démb doon xeex ko jóg ci kii. te itam ku mën a xeex ko kii la mhm. ba tax na Moussa na bëgg a yokk ki nga xam ne kii ne mën a ëpp yëg bi mhm. waaye nag ragal ne ba wattu Moussa ci moom la jëm si mhm. te moom fekk woon na ne démb Moussa comme gëmoon dafa deewoon te nag lay tey ragal na ne tey Moussa ci moom la jëm si ndaxte Moussa nag koo xam ba pare war a jox na di tegg xaala mu ne ko yaa Moussa yaa Moussa hmm. boobu nga xam ne mooy mbokk Moussa mi xaala hmm. mu ne ko yaa Moussa yaa Moussa hmm. anturi aturi lu ndax da nga nam an taqatu la ni nga ray ma amaa xatal da ndik nga rayee na son bakkan bin am si ci démb en turi lu namuloo yow Moussa ilaa anta ko na dara nga nekk jabaaran di aji fettéerlu dara adda ci suuf amaa turi lu namuloo anta ko na nga nekk min muslimin da bokk ci way yéwénal ñi wala xam ne waaye nag Moussa bokkoon ci ñi nga xam ne ñi nii dem dañu daan dañu daan euh, bokkoon ci benn bi saay la. Mm. bokkoon ci ñi nga xam ne nii itam dañu daan yàqal euh, Moussa. Mm. da ko yàqalee ci biir njabootam. Mm. ba deewoon na ci kaw Moussa. borom bi tabaaraka wa taala nee na joxoon na. Ah, xaaroona moomu la ci xeeti ndàmb hmm. ndàmb yoo xam ne yéen place yi ñu ko tëj hmm. mu nekk ay gaale ki ne yooye lay duugoon na mbooloo moo xam ne mii nii amoon nañu kattan hmm. ak mbooloo moom li ñu bëri bëri deewoon na nag ba na benn bis njabootam bokkam yi sax doon nañ ko waar bokk na ca lañ ko wax nee nañu ko bàyyil ci sigré bi ngay def ci kaw nit ñi yàlla kat bëggul sigré kat boo xam ne dafay réelu ci nit ñi ñi nga xam ne moom la la yàlla jox loolu la nañ ko sàkku keroog àllaaxira ga bul fàtte ci sit bii hmm. nga xam ne moom la la yàlla may hmm. bu la yàlla mayee sit bu toll nii bii mu may la hmm. da ngaa war a mu may la sit bu ko may la tam foofu ci àllaaxira nee nag ñu ne ko na nga rafetal ndaxte yàlla rafetal na la la yàlla may na la taar yow itam na nga mayee taar nee na ñu ko bul nekk nit koo xam ne kii ne dafay yàq ci kaw suuf bi waxte yàlla bëggul bëggul yàq xaala mu ne leen ina maa wuti doo naka joxe na ma lii ma am hmm. maa laa yeen min ci xam-xam ne liggéey bu nekk ci man hmm. man de dama xam xam-xam bu may xelal hmm. benn xam-xam ak ak ak jiitu moo tax ba ko ñu Israël yi ne Moussa bu ñëwee ci kawam lay dal fekk Moussa mu ngi bëggoon a jàpp waa ji nga xam ne ci moom mooy ko jox seen kër yi ba ko jëg Israël dina ragal te moom mooy ki teggale woon démb mhm. moom moo wax Moussa ne ne ko daal mhm. yow daal da nga maa bëgg a reyati rek mhm. ni démb yaa ko reyoon nit yow daal du woon la bëggu laay defar dara bëggu defar kat dara yàq kan nga a doon rek te nag ki reyoon nit ci démb démb man ne ñu ngi wut te xamaguñ woon kan la ci loolu naan ci lañ xamee ne da nga taxawaay yi deewoon démb Moussa moo ko reyoon wax nga nee na waa dëkk bi ne def nañ ak Moussa. Mhm. ne daal suñ ko tuddee rek danañ danañ ko jàpp. wajaa mhm. dikk na la juróom benn waay. min a min aqsal madina ci gën caay sori ba. Mhm. yas mu ngay daw. benn waay moo ko ca dëkk ba. te daw jëm ci ci Moussa. xaala mu ne ko yaa Moussa yaa Moussa. innal malaa naka mbooloo mi. yastamiroona ñu ngi digleante. di ko ci yow. yastamiroona ñu ngay diisoo di ko ci yow. ni yàqatu loo su ngir ñu rey la. ne génn dëkk bi ñun mhm. ñi naka man mhm. ñu ne naa seen bokk naa ci wilaaya a lii naka ñaan la mhm. wala ko moo saaka benn waaye nag moo bàyyee ko ci jël dëkk ba waa jooju la nee nañu mooy kooku nañu ngir jëfewootul xaafiri ñu min aali fanaan yegg tum imaan oo waa jooju la bu rëy ñun daan waaree ak ñun gëmee woon Moussa yàlla ñu kooku nag moo bàyyee ko ci jël dëkk ba dëkk ne ko Moussa kat gaa yi kañ ngi dajee ñu def seen réunion te yëf yi li muy topp yëpp dañoo bëgg a def benn complot boo xam ne bi ne dañ la ci jàppee rey la day hmm. daal na nga génn dëkk bi hmm. laayeen naa nag biir hmm. wax ma nga defee xaraja mhm. génn Moussa min ha ci ba xaa mhm. ifan bir moom daaji ragal mhm. yet laqa ba mu ngay fuulu wax fuune mu naan léegi tey gaa yi jot ma gaa yi jot ma xaala mu wax ci dëkk ba mu rabbi yow sama borom najji ne yal na mu musal mu ne xaw ma ci nit ñaaw xaa la ngeen ñu la woy tooñ jamono ba nga xamee ne génn laa génn ci dëkk ba jamono boobu lañ la ko dégg mu naan rabbi najji ne min al qawmi salimin aw xoraan min awali ila axiri mu nekk leen ak yonente commencé sànq commencé def nangam. Mhm. dana nekk ñëpp ñëpp benn la. Mhm. mu wax ñaan nga xam ne génne moom la waxoon. Mhm. yonente boobu la buy ne génne moom lay wax. mu ngay de di nga eh, na ñaan yoo xam ne yéen a defoon nañ ko. loolu yëpp li may tekk mooy ne ab jullit. daa ñaan. buy sotti ne génne dafay dafay làmboo kon yàlla Moussa noonu la mhm. génnee. rabbi ab ndab la jëlee ñu ne xam ne faale mii na. Mhm. wala maa taw a jaa ba mu jubloo. Mhm. dal xaa Madiana ci wàllu réew Madiana. ba nga xamee ne bay ko na Misra nag. nee na mu ngi jëm ci boori jëmale boori Madiana. xaaral la wax ne asaa rabbi amaan na sama borom. moo moo li mu ci jublu rek mu ne maa ngi ñaan ci sama borom. ay yéex di yéen mu jubal ma. sawa ak sa déeli jubag yoon. mu ne mu ngi ñaan ci borom bi tabaraka wa taala. te xamam na itam ne borom bi ne dana ko jubal mhm. jaarale la ko ci woo xam ne bii nii mu jub la mhm. defee maa yoon di mhm. dema dema dem ba àgg ba jub ba jub si réewu Madiana boobu la wala maa war a ba mu rootee maa a Madiana ndoxam Madiana mu demee ba ñu jëm si ji teen bi nga xamante ni fi la waa Madiyana di rootee wajada la fekk xaale yi ci ndox ma bu ma tan mbooloo dina naa si ci na seen daaw la ba mu ñëwee ba ak si nga xam ne la waa Madiyana di rootee fekk na fa mbooloo moo xam ne mi nii ñu ngay i waaw yéen a fekk na mi doon nañu wëllis leen. Mhm. am imraayatayni ñaari jigéen. Mhm. yoo xam ne yéen a tasaw ñoom ñi ngay dàq seen daaba yi. Mhm. mbooloo maa ngeen nandal. ñoom ñi ngay dàq seen daaba yi. wala leen te leen nandal. xaala wax Moussa mhm. ne nag maa xat waxumaa lan mooy seen mbir mhm. lan mooy seen solo mhm. ba gars yi ñoom yi ngeen nandal yéen au lieu ngeen nandal ngeen bi i te ne ko ñun yi di bata dongee mooy bata jiwee aréa wa sàmm yi ñu de du mën a nandal wa sàmm yi nga xam ne yéen ñoo fi nandal dañuy buuxante dañuy puusante ñu ne su defee dañuy xaar xaar bu ñu ñu di nandal ba dem suñu yoon. Mhm. su ko defee ci jamono jooju rek. ba teen bi féet. wala doon mhm. man nandal. Mhm. ndax ñun ay jigéen lañ. te suñu bàyyi amul pour ñun. te moom ci boppam itam gaa ah suñu bàyyi amul yeneen doomi góor yoo xam ne jigéen moo ko mën a sàmbal. te moom ci boppam léegi màggal na. te ñu mën a ñëw bokkante góor góor yu am kàttan yi. dañ leen ba ñu nandal ba pare ba dem seen yoon. su ko defee nag ñu doon nandal. xaala Moussa ne leen maa xam ko maa lan mooy seen tolo hmm. lan mooy seen bér hmm. xaala taa ñu wax ne ñu hmm. dee laa nos ko yi di ñu nandal xataa yi sida ba ta gongee xarañaawu sàmm yi waa boo naa suñ bàyyi itam soyxun mag la ka biirun moo xam ne nii nii mu màggat la nee na seen bàyyi mag la moo xam ne nii nii dafa màggat parce que bu mu ko defee mu nandal doo maa ñaan leen ñoom ñaar su ma tawal laa topp mu du mooyu ilaw xel jëm ci kër ga ba nga defee Moussa ñëw doon naan eh, ci eh, jàppale leen mhm. ba ñu naan la seen jur ga mhm. nga xam ne bii seen jur gi naan la mhm. Moussa nag dem ci kër ga nag toog nag ndeysaan dafa noppalu Fakala mu hmm. wax ba nga xamee ne bii nii na ci kër ga de noppalu. Hmm. day xamul fi kenn. Hmm. réew mii de mu ngi koy door a agsi. xaala moo wax ne la bii yow nii naka man. ba xëy na aji xaaju la. li la nga xam ne am na la wàcc nga ko illa yi jëm ci man. na ci wuyu. mu ne ko yàlla de. léegi de nii boo rek. am naa ci soxla. li oh. na yàlla daal léegi. li boo ma joxoon rek am naa ci soxla. ate boobu mu gaa yëg na ne. yëg na ne xiif na. yëg na ne itam rabbi yaa sama borom yi nii man hmm. faqiirun aji haajo la li ma ci nga xam ne am hmm. la wàcc nga ileeyi xewal wala joxe la xam naa ci tool ba defee xale yi nag ànd nañu seen jur ga. Hmm. ñu ngi nañu. Hmm. jamono joo xam ne bii moom fekk jamono hmm. a nit ci waxtu yi. nekk seen bàyyi la daal. ñu baax di dégg benn waay boo xam ne bii nii moo leen xeet rek moo moo moo moo naan la jur gi. loolu moo tax ñu mën a nit ci waxtu boo xam ne bii nii jiitu na waxtu woon daan ñuy moom seen bàyyi nag ñamal ne ñamal ci kenn ci ñoom ñaar. Mm-hmm. ne ko demal woowali ma ko. ba mm-hmm. jaa atuu dikkal ko ñu ndaw ma kenn ci ñoom ñaar. Mm-hmm. tam suñu mu ngay dox. ala suñu yaayeen ci kersa. kenn ci ñoom nag moo ñëw. da ko woo sa jamono yooyu. nee na mu ngi ànd kersa lool. xaaral mu ne ko inaa bii. ndaxte jànq la woon. te moom kenn ànd. xaaral mu ne ko inaa bii ne ko sama bàyyi. yàlla na ma ko mu ngi lay woo. li yéen ci yaakaar ngir mu fay la. aji dama yoolab la nga xam ne sa fay la naan nga fa la naa ñaan ñu mu ne ko sama baay moo lay woo nee na daf laa bëgg a fay fayal li nga xam ne ndimi moom ñu naan la suñu góor bi wala maa jaawaa ba nga ne Moussa ko ne bi nii ñëw na Moussa da ko nekk li ko tax a génnee ca réewu Misra ak place yi xam ne yéen ñun ci la jaar ak li ko tax a jëm sa fii ak li nga xam ne léegi moom la fi yaakaar itam ne ko daa taxaw bu ragal yow dee na jaw ta mucc ci nit aw faana ñi ne ñu de ne ko sa dal hmm. bu la amati dara xam ne nit ñi yaa ngi koy ragal parce hmm. yàlla mosul na la ñu ne ko aw xaale ñu ne ñu dooy tooñ xaa boobu loolu nag am nañ ci wute ñu bëree bëree bëri hmm. gannaaw tudd nañ ci Madiyana damay laa Madiyana axaahum Shuayban lañ daan wax tax nañu bëree bëri def ne ab yonent yàlla mat yonent yàlla Shuayb la woon waaye nag li wóor daal moo di ne yéen yàlla saa yi ñu ngi woon ci réewu Madiana. Mm. Moussa itam mu ngi làkk woon ci réewu Madiana. Mm. waaye nag dana jombe lool. Mm. mu nekk comme su fekkoon nekk yéen yàlla saa yi bu. parce ne. ba maa xamul loo ci ñun tamit bàyyi dina. te kon nag mel na ni moom su réew dana nit loo de. te nit loo de yéen yàlla Ibrahima lañ Ibrahima. xam nga ne moo jur Isaaxa Isaaxa jur Yankoba. te Moussa sax tollul ci sëtu daal kon daal dana jombe ne moom muy fa nekk ba Moussa da koo fekk mhm. waaye nag li am daal moo dina réew mi nga xam ne ci lañ yónni woon yéen di yàlla soné bu mhm. réew moomu itam ci la Moussa làkk ji woon mhm. am na itam jaamu yàlla bu baax bu ko fa làkkoon waaye mu doon soné bu nag loolu moom sikk ñu ngi ci ndax soné bu moo doon wax ne ba maa xamul loolu nit ñi bàyyi di ñu ci yonte yàlla loolu sëriñ xaaral mu ne ko xaaral wax indaa maa kenn ci ñoom ñaar. ba nga xamee ne bii ne seen bàyyi dalal na ko. ba ne ko daal pour ragal. dinaa ñëw nga ba fii. fii moom nguuru Firaw na ngi xas suuf bi. daa taxaw pour ragal. da jawta mu ci ko bi nga xam ne jënd ñaar xaale mi ne ñu dafay tooñ. xaaral wax indaa maa kenn ci ñoom ñaar. leen yaa abati yow sama bàyyi. ista ajiru na ko sàkko yoolu. dinaa leen ko war a jàpp. mu nekk sàmm sàtt bi. boo xam ne bii ne dafay dafay dafa war a jàpp mu nekk ab sàtt ci sa biir kër. jënd. dina xayram ñoo joxe dina xayram na gën ci gën a xam ci saa jënd yooloo nga ko. aw xëy na jéem mooy waa joo xam ne jënd ci kàttanu la. alhamdulilah yoo xam ne jënd ji wóor la. ne ko baax daal kii dañ ko war a jàpp. mu nekk sab sàdd ci biir kër gi. ndax boo demee ba ñuy sàdd. sàdd ba gën ci sàdd boobu. mooy sàdd boo xam ne bii boo am am kàttan la. te boo am am kóolare lay boo am kóolare lay doon. te kii nii kat. boo am kàttan la te boo am kóolare lay doon. noonu la nga xamee ne am na kàttan. moo mm. dee teen boobu la nga xam ne yéen teen bi nga xam ne bii nii mbooloo mu bëri lu war a mot ci nit ñoo ko daan dëkk. Mm-hmm. te moom kenn du ci ci suñu bopp. Mm-hmm. ay jur yi nga xam ne bii nii moo la ko waroon nandal. Mm-hmm. te moom kenn nandal na leen. loolu rek yi itam moo di ne. waxante wu doon ñoom lu mooy rek. laaj leen lu leen turee nandal. ñu wax ne seen bàyyi dafa màggat. mu dem nandal leen. waaye lu mooy loolu dafa suñu diggante. xaala góor ga nag wax wax Moussa ne ko. indi mhm. yàlla naka man uriidu na mën a. Mhm. an unkihaaka ma takkal la. Mhm. nii dem na tey kenn ci sama ñaari doom yi. ah tey ni ñaari yi. ñaari doom mm-hmm. yi damaa bëgg a takkal la ci kenn mm-hmm. alaa nga yore nañ ki nga bàjjeeg man nga yoon yoonaanteeg man mm-hmm. damaa ne ci jëm juróom ñetti at dayin at moom da soo ko motlee aslan fukki at sama ñeenti gi koy coobare la yoo xam ne jine bayekoona ci yow maa wala man góor gi nag namu ma ana soo xam may taf ci tatal àndeki ci yow ci sotaal gi nga xam ne gii moom la lay sotaal fukki wala mën naa la tee nga xëy naa wala mën naa la euh, bu dee nga ay contact mhm. wala ma naan la lu tax nga doon mel nii ak nag wala mhm. bëgguma daal nga nekk bëgguma lay sonal daal di ñu lay nekk mhm. te nag man mii nga xam ne maa si njaatige sa sa jibi ni yow si nga may fekk insa bu soobee yàlla yàlla dina saa nii ñëw bokk ci wéy yu nga xam ne kóllëre goo sa ñëw rek kóllëre goo dañ ko dox ba mu rafet xaala Moussa ne ko zalika loolu nga sama diggante ak yow waaw mhm. nañu loo xam ne yow yaa ko sàmmante mhm. ak loo xam ne li nii man maa ko war a sàmmante mhm. léegi nag mbir mi ñu ñaar ñoo ko sëq kenn ku ne na taxaw ca la nga xam ne li nii moo ko war man nag man lay yëgal ne. Hmm. yaa ngi tudd ñaari yëf yu bokkul. Hmm. ndax da nga ne hmm. ne fukk. li ne. ayaman ajalay ne fu mu jeexal naa ko rek. balaa amoon waa nag déet noonu noonu la dama war a. Eh, da nga ne ngi ci ne. ñaari nag man bu ma ci defalee wàcc naa. balaa am waaye ndee suñ borom ànd yee ci man su ma wàccee du sàkkootu ci man daan naa ci dolli léegi yooyu wala yàlla nag wakiilu moo dëkk ñu wakiil alaamati la nga xam ne noxooru bi lañu ko wax man ak yow li nga xam ne léegi moom lañu wax nee na ma borom bi tabaaraka wa taala moo dëkk ñu di wakiil Moussa nekk na ba ba. Hmm. sàmmal na ko daal di bi nga xam ne bii nii moom la waxante woon ak moom. wala hmm. maa ko baax ba jeexalee. Hmm. Moussa Moussa a ngi jëlee digg ba. bi nga nga xam ni Moussa sàmmal na ko. ba jeexal ko. laaj nañ ko benn kilifa. ne ko Moussa ne ñaari digg ban la ci def. mu ne bi ci gën a ci matal kóllëre. boobale la def. xanaa booba moo doon fukki boobu.

madde tooru siin a mm. bu fekkente ne yaa ngi bayee tooru siin a jëm madde ya nag mm. yaa ngi war a jaar ci siin a tooru siin a mooy fi nga dégg waaro ji bi naan siin a yi mm. yaa ngi war a jaar siin a yi siin a yi boobu boo fi jaaree yaa ngi jëm Palestine Palestine nag foofu la madde ya nekk ba nga xamee ne bii nii Moussa. Mhm. Moussa romb na li eh, nga xam ne naa njaboot googu nag. Mhm. ba ñëw si nag ci jaanima tóori. aana mhm. sa la wétaliku. aana sa la yëg. ñun jaanima tóori ci wàllu doju tóorul. sina sina yi ci réewu sina yi suuf si sina yi boobule. boobu la seeni naaran safara alam wax leen li ñeen njabootam gi da um kutoo sax leen foofule indi yee naka man anastu yëg naa laa naaran safara laa ci moom da xabarin ci ci xibaar xibaar boo xam a tegtaloo ne yoonu fii la aw jëfatin ci safara laa seen naa fa loo xam ne nii nii safara laa ko fekk dama mhm. la woowale maa ngi cee dem mhm. naa fa jëlee xibaar ba ma ne yoon bi mhm. wala ba ma jëlee fa xalu safara boo ne bii ne da ngeen ci mën a jaaru gis nga alxuraan ni muy xisa bépp mhm. boo mhm. boo xam ne bii ne mu ngi xisa u boo xam ne bii na ci xisa ba mhm. buñ demee ba nga xam ne amatuñ u booba la dootuñu ko gisati mukk mukk léegi xisa Moussa dootuñu dootuñu ci gisati mukk ñu naan jabar ja ba mu ànd ak jabar jàng nangam ak nangam keroog ba nga xam ne bii nee leen xaar ma seeti sawara woowu rek foofu foofu mu mu doon leen fa xaar mm-hmm. te sëñ moom foofu la ko wàccee ban tey yoo mm-hmm. ko yaa fee nekk desoon na sa bopp naan gannaaw ndax ndax ñoom Moussa mm-hmm. de saar na ci ñoom ne nañ ànd dem wala foofu la Moussa jaare dem yoonam wala yooyu waaye gannaaw affaire nubb wala ñuy nett bi te jawal ji moom bokk ci nubb gi jawal ji moom yoon kenn dootu ci amati ku bokk ci nubb gi rek léegi léegi dootu dootuñ ci amati soxla kon nga nga xamee ne bu yàgg ban itam la yaroo ni ñu am comme ni ñu amee soxla ci Moussa fan la yaroo mhm. ak fan la jaar a yooyu mhm. yooyu yëpp amuñ ci amuñ ci soxla mhm. ndaxte léegi coono yi nga xam ne yéen moom la Moussa fondement woon coono coono yooyu ba mu demee bay njëriñ booba la ko door a bokk Haarona kon Haarona moom njël benam ñun amuñ ci soxla ndaxte coono Moussa moom lañ ñu Haarona comme ni xam ne jabar ji tam léegi dootuñ daamati soxla mhm. ndaxte jabar ji bokkul ci nëbbuwam yi alquran daal bu fekkee ne mu ngi xiso daal mhm. gis ko boo xam ne bii ne bokkul ci la nga xam ne lii nii mhm. moo moo moo taxoon a jot ba gis bu booba du ko tudd nekkee ne tudd na ko itam mu ngi koy tudd rek kenn la tax mu bokk ci xale bu ba rek léegi kenn duñ leen di jabaree jabaree Moussa jooju de. ñu tudd ko. état bi ñu koy itam. dafa bokkatul ci lu mu wóor yi léegi. waaye ala kulli haal Moussa ba ko fa bàyyi. Hmm. dinaa nag moom bu yóbbu ko ci dëkkuwaayam rek. Hmm. Eh, waaye dugub foofu la ko woon ci àll ba. Hmm. leen ne leen. فلما أتى نينا فلما أتى ما كمل موسى ديك النصارى وولي نودي الله يسنقر من جاء من ساتي الوادي كتسية قروة الأيمن كوالا ليجور بفكين دنگا بيكم مدينة جمي سور جاء فتوات ليجور ليجور فكين دنگا بيكم مدينة جمي سور جاء ليجور ليجور نينا فولا نيوه موسى البقنا تجي برابا المباركة بدأ أجي بدأ بني بركة من السجرة di ci garab ga mm-hmm. garab goo xam ne gii nii moo nekk foofu la mm-hmm. nee na ñu garabu zaytun la ba mm-hmm. bisu tey ni moom nga gis eh, li ñuy dee sabab loo turu zaytun yi ak eh, yi mel noonu yëpp ak wat ci li ñu jàngoon dem ci bëgg fan yële ci gannaaw ci waaw sootu noonu ak ba lañ jàngoon ci moom bi تنبت بالبنون العلم بيمنة بصلاة الوالي جوته دجوة أعوة خروة على يمن جوال نيور لكن دنا بيكو مدير جنس مثل سويت نيور البقعة تفلال مباركة بدبن barkeel ci place boobu nga xam ne yàlla daf ko barkeel ndax si Moussa foofu la doon waxante boromam dina sojolati ci garab ga ñun ñoo ko mën a ne ko am na ko mbir yaa Musa yaa Musa. indi ya naka man. ana man allahumma yàlla rabbul alamin ak kee borom bi tey bii. wala borom bi foofu la ko borom bi wooyee na waxante moom. waxante bi nga xam ne jàngoon nañu saa mu gën a mhm. mhm. ba nga xam ne Moussa dem na Misra. Mhm. ba joxe fa nubuwa ba. ba ànd ba ñu jàllaat te fi te fi mu danga. ci rawana ndab. jamono boobu ba mu gisee muy def ñi xaatu bi ak neen layla ba. ci tuuru si naa ko wóobu la ko la boo xam ne gën a bàcc woon la ci Moussa. ndax fa la jëlee nubuwa ba. fa la daan jëlee fa la daan ay membrement mhm. yoo xam ne ni yàlla ko koy jox li ki tawreet ak yooyu la ñu ne ko Moussa waaw ka na nga sànni mhm. mhm. wala maa raaha ba mu gisee yeet wa tax te mu ngay jaay daana daanaka moom jaan mu nga mel ni jaan ñu ko daw eh, eh, eh, day mel ni jaan wala mu nga dëgg moom Moussa mu dëgg la laaj joxe gannaaw wala mu yaa ka si deel sewul nga dee misaal rek ñu mhm. gisee muy jaar mhm. ndax ñeer boo xam ne bii ne nañ ko daan téye bët bu set mhm. nga saa nga saa ne ko rek mu toppe ko jaar boo ko de eh, mu tiidee ji nag ñu dafa nag borom bi tabaaraka wa taala nag ne ko yaa Moussa ak bil ci lu fin wala taxaw bu ragal bu nekk nag yow bi leen aaka ne bokk nga ci ñu wóolu yi loolu na nga toog yàlla ka sa loxo bee jëy bi nga ci sa baal mbubb taxaw dana génn baytaa daa ji weer ñam xayru si lu ñaaw te loo xam ne ne du jàngoo mu ne ko génne sa loxo. dugal dugalal sa dugalal sa loxo ci sa biir loxo ndugg. mu ko dugalee mu ne ko génne ko. kon mu génnee loxo bi ànd ak sàll. benn loxo bi ko xam ne kii nii ku weex la. ci loolu nee na duguloon. si si soo xam ne bii dafa nekk ci moom. duguloon itam xam boo xam ne dafa nekk ci moom. xanaa loolu dafa newoon kii man rek. mooy ñaari kéemaan mm-hmm. ñu ne ko wan nun nga tàbb yedd ak ilayka jëm ci yow danaa mm-hmm. ah xaka sama mbagg mm-hmm. ñu ne laa bi ngir euh, walla na nga tàbbalee léegi ñun ci yow yéen a am ka sa euh, mi na laa dugg rëpp yi. Mhm. bu fekkente ne tàpp na loxoom ñaari mbagam yooyu de. Mhm. leen tàppee. Mhm. jamono yooyu nag mu ngi ragal euh, loxo baa ko mel. su ko defee rek loxo bi teel delluwaat melaat na nga xam ne nii mel meloon. soo xamee ne bii ñu daal. dugal na ko ci biir euh, loxoom dugg ñi. su ko génnee. rek da ngay gis mu nga sàll. soo xamee ne dem na dugalaat loxo bi tàppee ak noonu. su ko defee mu dellu ñu melaat na nga xam ne nii la meloon.

yàlla nañ ne woon ba saa nekk ñaari kër yii. bu hmm. naa naa ne ñaari lay dañ. Hmm. nga def ko yu tukkee ci sa borom. Hmm. ilaa Firawna daje ci Firawna. fekk borom bi tabaaraka wa taala. dafa xamoon ne xetam yii. boo liggéey dana ci defee moo jëte boo xam ne bii da daal ci ay làkk njéewal yi. moom jëte boobu léegi du ko ci di nekk biir. il faut dana tiit. bëgg na jamono bi ci Moussa di tiit. nekk jamono boo xam ne bii nii ñoom ñaar rek ñuy nekk. boobu mu toog ba nekk ci mbooloo ma. di ci tiit. gannaaw bi ñu nekk boobu ndam ko daan jëriñ. gis nga ne ba nga nga xam ne nit ñi bëgg nañ ku leen nangam ndox hmm. te doo wala moom la dooroon ci doj wa hmm. ndox ma génnee jël hmm. gis nga ne ba ñu bëgg jàll ci tax itam moom la dooroon ci nga xam yoo xam ne yéen mën nañ cee jaar nga ne ba nga xam ne ne ni jéewee yaa ngi ko bëgg a napp moom la saag moom wàllum da nga xam ne li ne moom la jéewee fekk ci ay taxee loolu nag dafa laajoon ñu jàngal ko ko jàkk hmm. lu jiitu muy de muy ko yóbbu ci mbooloo hmm. ba saa ne ñaar yooyu le hmm. bu daan daan ñaar lay dañuy rëbb ko yu tukki ñu sa borom ilaa firaaw na jëm ci firaaw la wama lay ak mbooloom firaaw na ba ina moom nag ñoom kaa nekkoon nañu xaw man jëmale xaal su fee na ñoo xam ne dañuy wëy génn ci topp lañ xaaral mu ne ko rab mu ne hmm. ko rab bi yow sama borom hmm. indi naka moom xatattu rayoon eh, naa ma num ci ñoom naftan bakkan man day dafa am koo xam ne kii ni rayoon naa ko ko waa sama borom dangaa ragal an yàqatu loolu ñu rayoon ko man de rayoon naa ko léegi naka dafa ñu rayoon naa ko mooy waa sama borom dangaa ragal ay yàqatu loolu ñu rayoon ma waa xëy moom moom ak doom moo gën a fasaa ñu ne ci man lisaani làmmeñ moom bokk naa roona moom nee na moo gën a fasaa ci man làmmeñ ndax man dafa am sama làmmeñ loolu fekk bu ñu sikki naan nit la wala nit kese la wala nit kese. Mhm. vraiment dafay doon benn safara. jëndale mhm. ko ak wóorul. te mhm. su fekkente ne bii safara nit kese xelet kese la. kon nee na wóorul bi eh, safara si lay jël. su fekkente ne ko ko li ñuy wax ndaw mag la. kon su boobaa nee na eh, wóorul si lay jël. mu jël na sawara wi. ba mu koy wan gémmiñam nag lakkee ji. lakk boo xam ne dañ ko indil doxam. moo tax mu ne ko xaaroon na. waaw moom ak moom naka la mm-hmm. ko saa mel ni ci mën na saa naan wax dëgg xaaroon na moomu la moo doon lagi Moussa. Mm-hmm. waaw sa noonu nan ko yebal ma yaa ànd ak man rit mm-hmm. an mu de aji dimbale ma nan ko nag da ko yebal ma ànd ak man dama dimbale ñu sa jota ni dana ma dëggal su ko defee dana ma dëgg moom ma fee mu dëggal ma waaye indi yee naka man axaabu danaa ragal am ñu kër si boor ñu ne dimbal xaala borom bi tabaaraka wa taala ne ko hmm. dana sud danañu dëgëral hmm. abdulaka sa mbagg hmm. danañu ko dëgëralee daa xeegi ñu da mbokk mi muy aarana li nga xam ne mooy samal war na na nañu def lu ko maa ñeex leen ñoom ñaar ñeex leen ñaar foofu saanan aw lay walaa yeesu doona ba noonu li ñu joti ilaykumaa jëm ci yéen ñaar yéen ilaykumaa jëm ñaar leneen rek. daa hmm. yaatu naa ci suma suma aay yi. Hmm. antuma aay yi ñaar. Hmm. ba man ak keneen am na ci sama ko ma toog na leen. aw xaale boo ne yéen a demee loolu. wala maa jaay ma bàyyi ma leen di leen Moussa. daa yaatu naa ci suma aay yi naa ci lu koy leer. daa la ñu wax ne maa saa ci lii. illaa suñu ron la leen jéebal. mustafa moo xam ne nii nii mu ñu ko dund. mais lii jéebal la moo xam ne nii dañoo fent rek. damaa ko nee naa dégg ni. da ngaa saa ci lii. yaa bàyyi naa ci bàyyi àll wala waxaala wax na Moussa. ne rabbi ak sama borom. ah alamu moo gën a bi man ci nga xam ne jaay dikkee ne mu ci mi ne ndey mu tukkee ko moom. ba mën a koo xam ne. te koo daa nekk loo ñaan ko. ah sabatu daare mu njëkk mu njëkk mu njëkk. defal dikk ak àllaaxira mooy leen yàlla moo xam na kan moo indi yiw ak kan moo ci ci ñun moo jël ko xam ne kii ne àllaaxira buñ ko defal dafay am ana xabaru daara mu njëkk ak àllaaxira ina woon naka moom borom bi laa yëf li ina woon naka luy mbir laa yëf li wala daka abale moo la woy woy tooñ yi waxaala wax na firaaw na firaaw mu ne yaa yoon ma ne yéen mbooloo bi hmm. man de maa leen ko xaw ma lu ko ñaan leen hmm. laayeen ci buur hmm. xayri xayri ngi ko dul man xawoon hmm. ma ne jenn yàlla ji ma mooy hmm. mu ne ko xaamaana waaw xet na nga togg ngir mm. ñaan ma mm. yaa xamaan yaa yaa yow xamaan mm. ci bënnit bi wala ko xamaan jële ci bënnit bi nga toggal ma ci ay mool ba léegi lakkal ma ci ay mool yu bëree bëree bëri la nekk mool yoo xam ne yii nii doon gaa dañ ko tawax rek waaye dañ ko tawax ba pare togg ko mu nekk mool yoo xam ne yii yu dëgër lay doon bu ko defee mool yooyu le bañ nga def li ñaan ma salaan benn teeg bu ko defee nga liggéeyal ay sato yoo xam ne yii nii yu guddi waxtaanee di naa yéen. Mm-hmm. di daay daay Moussa jëm ci yàlla Moussa. ñi mm-hmm. nga xam ne mu ngi woon ne mu ngi ci kaw. Mm-hmm. dina ko xanaa maanaam nag. gën a euh, fekk moo nekkoon ci ji ku wax ci jamono ji. da ngay wax ne moo nekkoon premier Dakar maanaam moom ne moo nekkoon jëlaafam ju mag bi nga xam ne bii nii moo mbool moo yore woon affaire mhm. ne ko mhm. mhm. xam ne daa du doon ne dañ koy tabax rek waaye dañ koy tabax lakk ko mu nekk mool yu ko defee mool yu dëgër yooyu la nekkee waaye nii nag man daa suñ noo jot naa Moussa bi nga kaasi bi la mu bokk ci way gën yi ate Moussa bi daa yaakaar naa ne li mu wax ne du du dëgg wattaka wara boo ko defee mu réylu moom bu moom Firawna mu réylu ba jënoodoo ak lëlëm ba ba nga defee Firawna ak lëlëm ba ñu réylu fel fel ar da ci suuf ba xëyee dal xaq ci lu dul dëgg waxoon na ñu jot ko an moom la ñu laaj ñu dëgg Hmm. axas naa min yàlla ñu jàpp ko hmm. wajunoo doo wajunoo doo ak mbiram ba hmm. wala dof naa moom ñu sànni leen ñu sànni ci saa yi ñu dee woon mooy baaru xalfam boobule kon su na nga fekkee bu kaara ni ki nekkee daa xamatu ko la ñu mu jëg woytoon mu wajaal naam def nañu leen fii ci àddina def nañu leen ay mata yi njiit ñu def leen nag ñu nekk ay kilifa binaan ak gaay yi dana ay kilifa yu rëy lañ woon kilifa yoo xam ne yàlla moo tax dañuy woote ila naari jëm ci sabara nekkoon nañu ay kilifa rek waaye kilifa lañu woon yoo xam ne yi nii bu ñu waatee sabara lañ la jëmale yàq du mu xaw moo yow ma xiyaamati waaw radu mun naara nee na waaye xaw ma def leen ci moom. waaye mosul wala kenn du leen ko dimbale ne leen di leen bëggal. waaw maanaam tofal nañu leen. te xaar lii dundaa ji ne àddina. laanatan laanatan moo rëbb. nee na àddina bi moom. rëbb moo leen topp. te leen tuddee rek rëbb leen. waaye yow xëyaara ko yóbbu si yow xëyaam. ñun ñooñu ñun bokk nañu bokk nañu ci ñi ñu doon ñu ñu bonal ne. nga xam hmm. ne hmm. dañoo hmm. sori yërmande. alxuraan nee na borom bi tabaaraka wa taala nee na wala xa daatee naa dikkal nañ Muusa dikkal nañ ko jox nañu ko ak kitaaba téere boobu la muy tawreet um doy ne maa ahlak naa ci ginnaaw bu ñu alagee alxuraan maa ci allulaa yi demoon njëkk ginnaaw boo xam ne ne bii ne xalag nañ Muusa Firawna ak gaa yi nga xam ne yéen ne ñoom la àndaloon boobu lañ ko dikkal nañ jox ko téere boobu la muy tawreet ba saayir ñu de woy mu de lay yu de woy leer ba saayir mu de ay lay yu de woy leer ñaan nañu. Mm. ba saa yaram bi mën daa jël. leer mu mm. naati ñaan nit mm. def nañ ko mu ne am am mm. njub wa rahmatan def nañ ko mu ne yërmande daa loo mak ñoom it zakkaroona danañoo fàttale ko yow bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla baaxee na la ba xamal na la loo xam ne li ne fekke a loon bi tóori di jaani bi xar bi ah, is qadaynaa ba ñu dogalee mm-hmm. ilaa Muusa jëm ci Muusa mm-hmm. al amra mbir mi nga xam ne ci lañ ko defee mu nekk ab yenente mm-hmm. mu ne ko yow yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne Muusa mu ko doon ndiyaaleeg euh, borom bi tabaraka wa taala ci wàllu jaanibal ay mani googu rek mais jamono boobu la nag. Mm-hmm. mu a ko yow yonent bi. Mm-hmm. léegi xibaar boobu la yaa ngi koy nettali. Mm-hmm. xam nga itam nan la demee. ci jamono yooyu la yow nekk la ko loolu yàlla moo la ko baaxee ba xamal la ko. وما كنت نقلون يونك جانب الغرب سوال صوبة اسخرنا بني وهيو إلى موسى جنت موسى الله ورمير يونك بوغل كرم خمين بني من يالا ما أنجي وهيو وهيو موسى دفد منك أب يونك دفع بنام جميع من ليك خمغو فيتي ولكو لتم مودل يالا لبلا باخي وما كنت نقلون من السائل يونك بوكو جبوي سيري لون دم سيري ولكو إنكم بكيون إنك ci xam léegi moo ëpp lañ ci xam mhm. yàlla daf laa baaxee moo tax ma mhm. allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullahi alayka azima walakin waaye ñun am mhm. sonna sos nañu ko doon ay maas yu bëree bëri xottataawa Mm-hmm. dund en léegi ci ñoom alhamdulilah dund te gannaaw nee na mm-hmm. sax nañ ko ay xeet yu bëree bëri mm-hmm. ay yooyu yëpp gudd nañ fan te teewal jeex nañ te teewal xabaar bi yow yaa ngi koo xam ba tey su ne su fekkoon ne yàgg ko ba ñëw dañ ko nett li ba maam ci yow waaye maam ko ko wéy nañ maa keneen maa di gudd fan jeex yeneen maa di gudd fan jeex yeneen maa di gudd fan jeex te ba léegi yow yaa ngi ko mën a nett li na demee woon yàlla moo yow yonent bi wama yakon na nekk loo saa bi yéen daaji sax bi ahli Madyana ci ñun Madyana hmm. kon loolu di jàng ànd ci ñun ayat naa suñu aaya yi hmm. walakin na waaye li fi nekk hmm. kon naa ñun nekk nekk nag musulmee li wuyu ne la ay xabaar yow day fekkiwul woon waa Madyana ba xam kan góor googale nan la dalalee woon Moussa ak nan la ko mayee woon jabar ak nan la ko Moussa doon sàmmale man kay maa laa yónneel ay yonent yonent yooyu di ñëw di la nekk xabaar yi waaye loolu fekk fekk mu ne ko woon yàlla moo la baaxee mu toog wa kaana fadlullahi alayka aziman mhm. yaa yonent ba mhm. maa ko da nekk lool di mhm. jaari bi tuuri ci wàllu dojoor is naa bay naa ba ñu wooyee ba nga xamee ne bii ñu koy moom Moussa. Mm. daa nga tudd kitaaba ba ko wóotal. te yoonu ñaareel wa. Mm. ba nga xam ne Moussa moo war nañ ko. ñu mm. xaatu ba biir am nañ leelatam. ba mu jeexee ba ñu jox ko tawleen moomale. danaan ko tudd kitaaba ba ko wóor. boobu itam fekk wala ko woon. te léegi mbir ma nam demee woon yëpp xam nga waaye. ñun ñoo la yónnee rahmatan di yemmaane ma dëgg ko mu duggee ci lékkal bi nag ngeen nga war tàmmal aw nit ñoo xam ne maa ataam dëkkal bu leen min na tirin jenn aji waare min xam ne ci sa njëkk daa lool noo ko jëm nit sa kër moom danañu war ci ñoom ñoo fàttale ko wala la an tusee boom bu taw mm-hmm. doonam bu jotal leen musiba tun musiba maa ci sabab yi nga xam ne xaddam man jiital na ko ay jiim seen delloo mm. dana bëggal ñi nga xam ne ñu ngi jiital ci seen kanam mm. ba taxaw na loolu le dañoo xooloo bu ñu naan rabbana mm. yow suñu borom lawla arsalta bu te lawla arsalta te taawa nga yónnee ilayna jëm ci ñun rasoolan ak yonente fanattabi'a ñu topp aayaatika sa aaya wan na ko la ñu nekk minal mu'miniina di bokk ci way gëm yi ba taxaw na loolu le kon duñ ci yónni woon ak yonente waaye nag dañ koy yónni yonente yonente boobu ne ku leen waaree doo liggéey bu leen bëgg ma jotee. bu ma xam ne ma jotee jiw ñu mën a lay ne dañoo xamu doon. Mm. ñeneen na. Hmm. te yow. wala hmm. maa jaaw mu leen diggalee alxaqu dëgg mu sunna. Hmm. alxaqu dëgg muy alquran. alxaqu dëgg muy islam. ba mu leen diggalee ñu ne naa ma dikkee ci ñun. ñu ne. daw laa wutiyee tere taawam ñu dikkee. dëgg bi. mu yónnee sa téléphone ñu jox ko. bis la maa kenn la bis la maa kenn ne. boo wutiyee joxees na ko Moussa Moussa. dafa yoo xam ne yéen dafa mel ni mu'jisaat Moussa ya. yàlla nee mm. awalam yakfuroo xanaa ñoom dañoo doon. mati mm. na nga xam ne óolutee mm. ci njëkk. xanaa du ñoom. ñoom ñi nga xam ne ñii nii Moussa lañu ko joxoon bu njëkk dañ ko weddi woon. kon nag lu xam ne naan yow lañ la jox. loo xam ne ñii nii ñoom xaaral waxoon nañ ba nga xamee ne bii ni Moussa Moussa ñëw na ànd ak Haroona Haroona ñoo waxoon ne daangi daal ñaari yéefar lañ dafaana laa yoo xam ne ñii nii dimbalante nañ ñu ne Moussa ak Haroona ñaari yéefar la yoo xam ne ñii nii dañuy dimbalante ba Moussa ak Haroona ñu ne loolu la ñu waxoon wala lu ci jublu moo di ne ba nga xamee ne xoote nga te tudd Moussa. dina hmm. woote yow Muhammad di tudd Moussa. Hmm. xaaral ñoo wax nañu ne. daa xiraani ñii di ñaari njéebarkat lañ. bu baax a Muhammad. Muhammad moom itam ci jamonoom. Hmm. njéebar la moo xam ne ñu ne yoo xam ne yéen ñi. dañoo lew loolu la ñuy wax ñoom ñu bokkatoon hmm. ak. wax bi. Hmm. ñu bokkatoon ak Moussa jamono ñoo ko wax. Hmm. kon ñoom wax ne xaar saayiraani ñaari jéeméeri yi. mooy Moussa ak Haaruna. bu fekkente ne wax bi ñu bokk yonent yàlla Muhammad jamono ko wax. kon ñoom dañoo wax ñaari jéeméeri kan waaw dimbalante nañu. Hmm. waxaala ñu wax ne. Hmm. naka ñun. kaafiroo da bay wét bi sallallahu wa sallam ñoo wax wax ji. Hmm. kon ñoom dañ ci jublu ne wét nañ yonente ci képp ci

alxuraan ne wal hmm. na leen faatoo dikk bi kitaabin ci téere mu indi lay mu tukkee ci yàlla hmm. koo xam ne woo daa mu gën a jóg hmm. munu maa ci ñaari téere yi muy tawreet ak injiil su ko defee attabi moom danaa ko topp man yónnin ko in ko noonu dem nekk ngeen saa dafee na ne way dëggal yàlla ne nett ji boo bu ñoo yiwul la ko ñeel la fekkente ne mën nga gën a bind di la téere maanaam da nga xam andamaa yetta moo na naka topp nay rek am ah waa am seen sabo fekkente ne mënuñoo ba indi lu wóor ne ñoom mhm. seen sago rek la ñu topp mhm. waaye nekkuñu ci waaye du seen sago la la ñu topp mhm. moo tax topp seen moo tax ñu waaw man ànd ak ànd moom gën a réer. li man ci koo xam ne itam topp na. xawaaru sagoom. waxee réew dan ci lu dul jub. ñu ne ndaay gu tukkee ci yàlla. yéen a ngi laajte. nit ñi nag kan moo ci gën a réer. koo ne kii ñu sagoom rek topp. te saa yi te xàndale wut ko génn njub. te xam nga ne topp sagoom moom mënul xànd ak njub. ñu ne laa naka yàlla laa yéen di di jubal. ab xam ne nit ñi ak xaalis yi ne ñu di woy